Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de ñu leen di siyaaraat bu baax mbokku téléspectateurs yi di leen dalal jàmm di leen wax ni ñu ngi toog ak ki nga xamante ne moom mooy le roi des arènes bombardier ñu fas yéene waxtaan ak moom ci yaatoo yaatu euh, salaamaaleykum champion maa ngi siyaar. maa ngi delloo siyaar mon ami mon frère di la dalal jàmm. fas yéene waxtaan nag ak cœur ouvert maanaam lépp loo xamante ni lu ñu bëgg a xam la temps bi ñu toogoon nii yëpp waaw vraiment ñu waxtaan si ba nga xamante nii àddina bi yëpp dinañ xam si lan la ñu nekkoon waaw. Euh, gannaaw bi nga xamante ni jóge nga ci sa euh, combat Angleterre MMA bi yàlla may la ci ndam ñu gis euh, li nga xamante ne sénégalais yëpp kontaan nañ ci mais ñu jékki-jékki nga waroon a ñibbisi nga jaar France laa mën a wax mbas mi daal di ñëw mën nga ñoo wax tuuti période boobu nan nga koo dundee. waaw euh, dama def benn combat Angleterre la vingt neuf février yàlla may ñu ndam ñu ñu programme woon pour bu ñu defee combat bi juste rek après ñu ñëw Sénégal xam nga fête victoire bi ak yooyu mais ku ne xam ne dafa si diggante bi lu xew muy mbas mi euh, mu ñëw nag bi muy ñëw vraiment bett ñu bëri ku nekk fi mu la fekk nga coincé fa mënatoo bouger man yàlla def mu fekk ma bi ma jógee Angleterre ma jaar Paris pour def fa quelques jours pour ñibbisi mais affaire bi euh, tëj ma fa mënuma bouger comme tout le monde mais vraiment c'était bon du ma wax ne c'est difficile mais difficile bi rek mooy juste mënatoo génn mënoo def say activité comme ni nga ko bëggee mais vraiment foofu moom ça va parce que soxna si mu ngi fa voilà sama sama sama famille ñu ngi foofu donc ma leen di nuyu au ñoom ñëpp mais vraiment ñàkk génn bi daal ñàkkoon def ay activité ak yooyu voilà loolu rek moo si nekkoon euh, métti métti mais ça moom voilà tout va sportif bu toog benn euh, mën nañoo wax benn place euh, entraîné jiwul demul saal dawi jiwul période boobu nga def ay weer quand noo ko doon dundee. waaw vraiment dund naa deux mois yoo xamante ni moom dama defoon euh, mooy loolu parce que sportif ku nekk xam na activité am dafay tàmm bouger daw dem saal dem defi boxe defi yëpp donc ñu ne la di ngay toog presque deux mois yoo xamante ni doo def doo def dara da nga jël corde ci kër gi dafay ay quelques pompes ak yooyu. mais xam nga loolu sport de haut niveau waaw nekkul entraînement bi nga soxla voilà mais après dañuy dañuy comprendre que rek ne lii lu fiy ñëw la il faut nga essayer dund ko comme comme ni mu ni mu ñëwee mais vraiment toog naa deux mois yoo xamante ni vraiment bon am na lu bëri loo xamante ni da ngay énervé wu xam nga euh, dootoo dootoo sawar voilà yi nga yi nga bëgg a def doo ko mën a def mais après da ngay comprendre rek après daal deux mois yi dañoo déconfiné rek si lendemain bi ma takk daal yi waaw. ñu gis ni euh, ki nga xamante ne bi nga duggee ci MMA bi nan nga ko dundee parce que déjà yàgg nga ci làmb mën nañoo wax ni dund nga li nga war a dund lépp ci làmb ñu jékki-jékki ñu ne la MMA ñëw na mën nañoo wax ni MMA ak bëre xaw na am différence parce que foofu am na ay tànk am na beneen xeetu entraînement peut-être bi nga doon def euh, mën nga ñoo expliquer tuuti effectivement xam nga MMA euh, dama ko yàgg bëgg. daan ko suivre daan ko topp ma xam combattant yëpp xam naa si ñu bëri bëri bëri mais nekkul loo xam ni dama tëb rek dugg si rek jël combat euh, non xam nga Montpellier laa doon préparé sama combat mujj yëpp depuis 2013 combat yi ma yëpp foofu laa ko mujjee préparé foofu dafa may ay club yoo xam dama doon entraîné ak ñoom ensemble su ma demee ñooy ànd def musculation ñooy ñooy nekkandoo salle et ma nekk ak ñoom pendant cinq ans ou six ans yoon damay entraîné ak ñoom ensemble. ba maîtriser règlement yu bëri xam système entraînement yi soog nangu jël combat parce que combat kenn du ko jël aveuglement noonu rek surtout sport de combat boo si dugg il faut danga ko war a jàng nga maîtriser si lu bëri xam système entraînement yi xam réglement yi aussi bëgg ko waaw donc presque que euh, entraîné naa ak ñoom ensemble cinq ans ou six ans soog a jël combat donc aussi beneen bi ma ni euh, làmb il faut moom beneen sport boo xam da koy concurrencer pas pour ñëw puus ko mais maanaam beneen plus lay doon boo xam ni pour mbër yi mënul am combat bëri dóor ñu am ay combat MMA aussi beneen bi dina permettre aussi tamit yeneen sponsor yu mag yi mën nañ topp MMA bi ba ñëw dugg ak moom Sénégal ba làmb neex leen sax ba ñu ba ñu ba ñu jàpp si donc man sama objectif bi ma am lool la jéem a yaatal MMA bi Sénégal mais ñenn ñi nag ñuy commencé di comprendre mais ñenn ñi comprendre guñ mais dama bëgg ñu comprendre que sport de combat yi aussi mën na attirer mën na attirer tey sponsor yu mag yi ba ñu ñëw tey dugg si voilà ambition bi loolu la donc aussi tamit euh, sama sama rakk yi nga xamante ne tey ñoom seen carrière presque des na lu bëri ñu am bëgg-bëgg bi ba dugg si ba nga xam man su ma arrêté aussi ñoom dinañ mën a continuer euh, donc gis nañ ni euh, site commencé na muy sama rakk vraiment bi muy jël combat bi laaj na ma xalaat wax naa ko li ma si xam yëpp aussi assuré na ko gis nañ aussi rëg-rëg mu ngi siy mu ngi siy mu ngi siy def euh, mu ngi siy bay waaram bon ñu ngi xaar aussi yeneen ñeneen ñeneen ñeneen parce que tey ñun am nañ avantage mooy déjà am nañ base yu bëre bi kon am nañ avantage tey pour mën a nekk ay champion si MMA bi. d'accord mu nekk lu am solo ñu jóge ci loolu comme ni nga ko doon waxee mbas mi dugg fii euh, ñu ñaan yàlla mu jóge fii mais ñu jékki-jékki combat yu bëri di taxawandoo si lañu dégg sa combat revanche ak Eumeu Sène parce que yaa nga ko wax bëgg nga boobu. mën nañoo wax ni euh, ci sa fin carrière la ñu mën a wax la combat bi ñëwee ñu ne Gaston Mbengue moo ko taxawal ñenn ñi naan taxaw na ñenn ñi naan taxawul ma ne comme teew nga fi naa la ci laajte combat boobu nu mu demee. waa ni mu demee man naa si indi leeral yu yu wóor mooy euh, combat bi ñu koy démarché boobu maa France ma doon waxtaan ak Gaston lu bëri ñu waxtaan ba am de principe maanaam ñu wax ba tënk ay kàddu. Gaston nekk nit koo xam ni xam xam naa ko bu baax xamante nañu nit la ko fonk kàddoom donc moment bi mu bëggoon taxawal combat bi ma Sénégal donc mu waxtaan ak parti bële ba ñu d'accord waxtaan ak sama parti ba ñu d'accord mais pour ma defar ay contrat ak signature il faut mu ñëw Sénégal donc ma ne ko xaaral su ma ñëwee euh, ñu ñu def finition yi donc euh, bi may ñëw net woo na ma pour ñu def finition yi mais dafa tombé woon man bi may ñibbisi dafa tombeek mu amoon décès donc yaayam gaañu si biir mois bi vraiment bëgguma ko woon di ko bousculer pour affaire combat parce que ku ne xam na waajur ni mu mel te waajuram génn àdduna moo koy woo di ko bousculer pour ñuy wax ay dafa signature contrat ma ne naa ko bàyyi ba affaire bi xaw dal tuuti bi may ñëw léegi léegi si yoon bi ñu ngi waxtaan téléphone pendant une de temps donc tey mooy quarante jours pour euh, bi yaayam génne àdduna ak léegi ñu waxtaan lu jëmaat si combat bi donc xamal naa ko ne ko aussi dinañ ci waxtaan lu bari tey pour mu leer combat bi taxaw na si ni ma mën a waxee ni taxaw na mooy que waxtaan nañu ba nga xamante ni tey si man la desoon pour ñu defar contrat yi donc ñibbisi naa Gaston si boppam léegi léegi même pas une heure de temps wax na ma ni ma Eumeu Sène am na moom benn partie boo xam ne moom jot na ko donc man nag li ma tënk ak moom semaine prochaine dinañ defar contrat yi. mu dugal avance am ñu continuer combat bi mais combat bi accord de principe yëpp am na waxtaan nañ lépp ba sama adversaire promoteur si boppam mu ngi may seetaan xam ne ni man du ma wax lu may làmbatu wax na ma ni ma sama adversaire jot na benn partie donc comme man maa desoon comme nekkuma fi woon donc léegi ñëw naa donc wax nañu ba tënk semaine prochaine dinañ defar contrat yi mu génne avance am ñu nekk ci combat bi su ma ne déggee bu baax loolu leer na combat bi aussi mën nañoo wax ni taxaw na donc fu mu toll nii euh, Gaston Mbengue ñëwaat ci làmb ji retour Gaston Mbengue nan nga ko gisee. Euh, Gaston mosul jógee si làmb ji mosul jógee si làmb ji xam nga. mën na en force bi may wax waaw loolaa la mën na am benn moment mu arrêté tëgg làmb mais ça veut pas dire dafay bàyyi combat parce que Gaston nitu làmb la euh, lu ñu mën di wax nitu làmb la donc retour am vraiment dañ ciy kontaan dañ ciy kontaan parce que plus la. mas naa def benn interview ma ne làmb fi mu tollu soxlawul ay promoteurs yu dem ay promoteurs yi ñëw la soxla parce que làmb bu ñu waxee dëgg deux ans yi ñu génn dafa xaw am crise kon vraiment bu Gaston ñëwee décroché combat yi toll nii tey vraiment dañ ciy kontaan waaw parce que retour lay def boo xamante ni bu am solo la ku ne xam na ni Gaston club bi mu defoon 2006 si le champion yi bëri génnee man euh, comprendre naa ko bu baax parce que bi mu ñëwee tey bëgg sama combat ak Eumeu ne xam na Gaston ak Eumeu Sène mel. doomam la euh, jarbaatam la léppam la man aussi Gaston sama xarit la sama sama sama grand la sama lépp la nit ku nit ku nit ku boo seetee sax dañuy wax interview boo xam neexul parce que dañuy wax ni dafa fonk kaddoom moom bu bu weexee danaan la weex na su bula mu ne bula la man dafa am fu ñu fi bokk jikko donc retour am ñu ngi koy saluer bu baax a baax di ci kontaan di wax ni na ñëw jàmm événement yi nga xamante ni tey mu ngi koy taxawal yàlla def mu sotti yëpp sotti ba yàlla may ko si réussite boo xamante ni voilà day continuer tëgg yeneen ba combat Bombardier lan moo tax nga yàkkamti jël Eumeu Sène lan moo tax nga yàkkamti revanche boobu waaw xam nga maa ko bëggal sama bopp nag combat bi wax naa ko fu nekk bariwu moon sax lu may wax ni combat bi maa ko bëgg wala maa bëgg mbër bi mais bi maa ko bëggal sama bopp parce que xam naa ni combat bu njëkk bi dama si juum juum ba xamal sama bopp dama juum accepté ko it li ma rëccoon si combat bale laa bëgg rattrapé waaw moom laa bëgg rattrapé wax naa ko fépp combat bi combat bu ma yitteel la combat bu ma ñor la parce que dafa am lu ma njuumte bu ma def même Eumeu Sène mi daan tey xam naa ni bugguloon combat bi demee noonu jël na si titre roi des arènes mais bëggoon na tey ñu livrer combat boo xam ni day gën a intense xeex bëre yëpp am si mais boo seetee combat bi c'était vite fait dafa gaaw ma se si détails yu bëri bëri mais daal xam naa ni bëgg naa combat bu saf-saf incha allah. mais Eumeu <clears throat> Eumeu Sène est-ce que dana la jox temps combat bu saf sap yaa ngi koy wax bu fekkee ni euh, ñenn ñi ne combat boobu cër bi nga joxoon Modou Lo jox ko Balla Gaye joxoo ko Eumeu Sène da nga ñëw xeeb Eumeu seen dox ci kawam. yooyu yëpp yooyu yëpp mooy njuumte bi xam nga ne accepté naa ko sam bopp ma ne dama juum juum nag ça veut tout dire. juum day nekk man nga xeeb adversaire bi liñ la conseillé woon pour nga bëree ko bëri woo ko euh, stratégie bi nga won na bëree bëri woo ko yooyu yëpp njuum te la après nga koy xam waaw moo tax ma ne la combat boo xam maa ko bëggal sama bopp la yàlla def tey Gaston décroché ko kon maa ngi ñaan ñu def combat boo xamante ni day day nekk te ama seen der la xam naa ko combat yi gën a metti si làmb ji boo ko des ñu koy bëre moo tax ma bëgg ñu def combat boo xamante ni ba keroog ñu ñuy bàyyi bëre day des si day des si mémoire yi. est-ce que Bombardier war na xeexaat ak Eumeu Sène xeex ak Eumeu moo la indil juum ji te ba yaa ngi naan combat wu der que Bombardier war na xeexaat ak. si si si Eumeu du daw te man du ma daw bu laajee xeex man nañ xeex. Ah. mais day wuute ak xeex bii passé ah. waaw. mënul ñàkk Eumeu bu ñuy bëree foog ñu xeex foog ñu xeex foog ñu bëre loolu mënul ñàkk parce que du daw géree la man géree laa. du daw coow du ma daw coow te dafa bëgg combat bu metti man aussi dafa bëgg combat bu metti moo tax sunu revanche bii mën na nekk combat boo xam ne kenn du ko fàtte si àdduna waaw la wax loolu. mën na mën na dàq sa combat ak mën na dàq si combat yu mas a bëre xam nga comme am ak na trop saf mais bii mën na ko dàq. ci xeex si lépp si lépp parce que combat fi mu toll si ñun ñaan la dafa am si lu mu jógee man moo am si lu ma jógee. donc moo tax ma la mën na doon combat bi dàq si bi làmb amee ak léegi moom moom li mu bëgg a bëree su ko bëree ak man li mu bëgg a bëree su ma ko bëree combat bu neex ngay gis. mais est-ce que est-ce que du naxante est-ce que du naxante. non non non combat bi mënuñu naxante mënuñu naxante foog foog day metti foog day metti dafa am si lu mu jógee am fu mu jëm man am am si lu ma jógee moo tax mënul yomb combat bu neex lay doon nañu xaar nañu xaar combat bu neex. nañu xaar combat bu neex mu nekk euh, lu ama am solo euh, yaakaar naa euh, mën nañoo wax ni mooy doon sa ultime combat ci làmb ji comme ni CNG fixé date li nga xamante ne moom mooy retraite làmb waaw parce que fekkee nii waa xam nga man tey position bi ma nekk am na lu may wax dañ naan bopp moo tax muy wax mais man je me toujours que ni bon pour man trente cinq ans laa am si wax waxuma en tant que nag keneen man sam bopp laay wax parce que tey su fekkoon ni sentir naa tuuti rek ni li ma doon def mënatuma ko ou bien wàññeeku na maa njëkk xamal sama bopp ne lii mënatuma ko mais li ma doon def maa ngi koy def ni may ni ma doon sentir sama bopp maa ngi koy sentir sama bopp mais comme réglement la tey am na nu ma si waxee dañ naan bopp ma tax muy wax mais man si monde bi gisuma si benn discipline boo xam ni dañ naan boo amee quarante ans boo amee 42 ans 45 ans arrêté gisuma ko fenn donc. moo waral ma gën a balancé wu de trop aussi tamit si MMA bi parce que MMA MMA amul ay arrêté da combat ba heure boo ko mënatul bu fekkee ni règlement boobu continuer nañ ko ne 45 ans nga arrêté ma arrêté mais tey bu ñu xoolee tamit ni peut-être mën nañ ko changer règlement la bam dañ ko dañ ko bindoon rek teg fii donc parce que yàggul loolu bu ñu ko fi commencé léegi ay 5 ans lay toll bu ñu xoolee ni règlement bu ñu mën a changer la bu ñu ko changer ma continuer def quelques combats mais bu ñu ko changer aussi damay bàyyi dem defi dem defi leneen.